ci wàllu njàng bi lañuy ñuy desandi ak ñi nga xamante ni am nañ seen bac waaye ba léegi xamuñu fan la ñuy dugg ci wàllu université ñoom nag ñu xalaat ni euh, mbir mi euh, duñ ko bàyyee noonu même si ñoom tamit weddi nañ liñ leen tuumaal euh, muy maanaam yàq-yàq yoo xam ne mënoon nañ ko def fële ci restaurant yi nga xam ne mu ngi nekk fële ca université waaye ñoom ñu bëgg dëggal seen njàmbaarte ci ñu orienté leen ci université bi ñu déglu kenn ci ñoom ci micro Christine Mendy ak Alioune Diagne. fii tant que ñu suñu situation bi cour du am kenn du inscrire administration kenn du liggéey tant que ñun réglé ñu suñu situation te en tout cas ñu ngi leen di ñaan avant situation bi di gën a grave parce que jamono ji ñu ñu ngi si sans violence mais ñu ngi leen di ñaan avant violence bi di ñëw parce que jamono ji nit nu muy sonnee noonu lay gën a tàngee noonu lay gën a te ñun ñaan nañu avant ñu egg foofu noonu nit ñi jàppale ñu ñu orienté ñu ñu dem jàng tranquille sans problème